Alamin amin Bar FZM Bi bismillah hilai dore hilai afiat kiseng bara lamin barai juga ngeruai karit sopem baseh bara newai kowar maman mitah medikat wai kiseng bara gantuk njolor lesut nukler turem dajfek puseh bara 18 santek ca 91 le buur feeñal sëriñ baara mu feeñ ànd ak ndax buur bi moo waajal sëriñ baara ci tuuba mbag te gi nii sax le buur feeñal sëriñ baara ñëwam gaa tax ñu seexal seex ibrahim faal sëriñ baara ñëwam gaa tax ñu xëy seexal sëriñ daam loo sëriñ baara ñëwam gaa tax ñu seexal seex ibrahim saar sëriñ baara ñëwam gaa jox ngërëm seex lum mbe xàbbante sëriñ baara borom guy min ak tay siir borom taw feex la seex baara boroom xam-xam la ak xar baax ñi xam wet nañ sëriñ baara boroom baatin la ak kàttan ñi xam wet nañ sëriñ baara borom baatin la ak kàttan ñi xam wet nañ sëriñ baara këram gur yàll la yéppay rang fa ngir ñàlloo sëriñ baara ne buur bee def ku ak soppeem lu neex buur neex na sëñ baara ba tax buur yàlla li yëppay moy tu def luy metti seex baara ku fonkon yàlla la ak yonenam ba doon soppeem ba mooy baara da daa kennal boroom jaam ñi ci lii lañ xam sëriñ baara da taalif di njukkal buur bi jox léppam sëriñ baara dadaa taalif xasiiday can te ñeel sangam ba seex baara dadaa taggit sëriñ tuuba ci ay ab yaat sëriñ baara sëriñ tuuba da ko fonkoon ba daa wax mooy tu baara sëriñ Tuuba da ko fonkoon ba daa wax moytu leen baara garaatu kun la bu jël jox yeneen jël jox ko seex baara da daa falfal li daa dekkal borom sañ-sañ la sëñ baara da daa falfal li daa dekkal borom sañ-sañ la sëñ baara da daa wër dëkk tinganal ni am feebar sëriñ baara da daa yokki ku waxtam jot mu des gelu bara buda warfas bu jeru gengir yerma wëddëy jël bara wat fam kotak daul worok bëggub mayam tutul turam néewul turam siulol sering bara mayam tuutul cëram néewul turam siiw lool sëriñ baara kajoor saalum jolof ak siin bawal xam nañ sëriñ baara yërëm ñoo tax mësul mer ndax merum buur mooy merum baara yërëm ñoo tax mu daa ñaanal ñu jàmm ak yiw sëriñ baara yërëm ñoo tax mu daa dàqal ñu ay feebar sëriñ baara yërëm ñoo tax mu daa fanqal ñu nattoog lor sëriñ baara yërëm ñoo tax mu daa bindal ñu ay ñaan cey sëriñ baara bu daa gis nat tu ñeel jaam yi da daa ñaan buur bi moom baara mu jël loole te féeteeg moom ki daa aar ñooy sëriñ baara da daa buur bi daa sottal si rukkun baañ ci sëñ baara da daa jubban ci daa jàngal ñi boroom xam-xam la sëñ baara da daa jubban ci daa jàngal boroom xam-xam la baara da faj aajo yuy jaam ñi ci lii lañ xam sëriñ baara sagub lislaam la ak yoon wi ku tiit dem seeti seex baara kajoor mbàkkeek baraaka ñépp a ngi njukkal sëriñ baara mësul xeb kenn bay tuutal ku fonkon nit la seex baara mësul ñaw njortu cib jàmbur ku sellan jik ko mooy baara mësul tooñ kenn bay baalu bu leen tuumaal sëriñ baara mësul lor kenn mooy jàmbaar du tas yaakaar sëriñ baara murit yi yow dalañ yaakaar bu bis pence sëriñ baara doxul suñu digg ak waanaar yaakaar nañ la sëñ baara bu may dund ak bu may dee yow dalaa yaakaar sëriñ baara bu may dund bu may dee man kamay doylooy sëriñ baara bu may tiit ak bu may jàqit kamay woo moo di seex baara bu may lekk ak bu may naan tur wa may ubbee sëriñ baara ma yem fii ndax te xol bee fees su may wax man ci sëñ baara damay bég lool ci way saa mbër te man saa mbër mi mooy baara na buur yokkaat ko ay xéewal te yokki may sëriñ baara na buur yàggal fi ay doomam te may leen wér sëriñ baara sëtëm yi yàlla na buur aar leen te aar dongaam seex baara sëtëm yi yal na buur aar leen te aar seex baara sëtëm yi yàlla na buur aar leen te aar dongaam yi sëñ baara ma koy ñaan fan bu gudd ak te may ñaanit sëriñ baara teraangay àddina ak ëllëg na may wër baar te seex baara lamin baara fi doon way tey xarit soppeem seex baara lamin baara fi doon way tey